bismil ilaahi werekaanu bamba njamee ngi deeti joo pakeem bël ba ku lab ci géej moole di xeeñ sa mboor ma ku dee ci jéeri gaay sange njoor ma ku lab ci moole di xeeñ sa mboor ma ku dee ci jéeri gaay sange njoor ma bamba di géej murid ya ñoo di jën yaa lu dee ci géej loola du muurum yaa bamba di géej ya lu dee ci géej loola du maa ngi leen di nuyu nuyu mbokk taal bi yëpp di si jiital xalif général des mourides Sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ak xalifa sëñ Masamba Mbacke bi sëñ Mamour Mbacke ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te naar bi tamit woyof tool si moom ñoo ngi tey si poste de santé Daaru Karim bokk si district sanitaire de Touba poste de santé bi nouvelle création la mairie bu Touba moom moo ko tabax si atum 2020 jàpp 2021 construction bi si la pare ñoo ko inauguré exactement septembre 2020 si lañ ko inauguré tàmbali liggéey bi poste de santé bi nag comme nu poste de santé yëpp di doxee noonu lay doxee am na maternité am na dispensaire maanaam wàllum médecine fu ñuy seetee jigéen ñi am na batiment à part fu ñuy seetee góor ñi tamit ak beneen consultation général toute affection confondue am na si poste de santé bi poste de santé bu mucc ayib la wax dëgg yàlla moo ngi couvrir lu tolloo si treize mille neuf cent quatre-vingt-treize habitants mooy population bi moom lañ ñu attribué mooy suñu cible daanaka zone yi mu couvrir lu ko tàmbalee si Daaru Karim ci jëmmi boppam da ko couvrir couvrir quartier bi ñu naan Looyeen couvrir quartier bi ñu naan Sanc Baye Cissé couvrir quartier bi ñu naan Xaar Yàlla maanaam hôpital tamit bu bees bi Cheikhul Khadim bi nga xamante ni moom lañuy tabax di soog a pare tey président Macky Sall inauguré ko yàggul dara moom it ci zone bi la bokk kon si gàttal loolu moo bindoo poste de santé Daaru Karim gi nekk si dëkku sëñ Massamba Mbàkke gi wàllum poste de santé nag bu ñu xoolee laataa post de santé bi di taxaw doonoon na lu métti trop si wàllum paj si askan gi wax dëgg yàlla ittewoo woon nañ ko lool ndax boo xoolee distance am ak centre de santé bu jéemul moom moo ko fi gënoon a jege booy xool beneen côté bi boobu li ko jëm bët gànnaar boo xoolee Misra la jege tamit te Misra ak fii rek ay ëpp na 7 kilomètres di dem jéemul tamit de même sori na torop ak fii maanaam askan bi dañ daan sonn torop ci wàllum fajukaay dañ daan jóge fii dem ba jéemul di faju di jóge fii di dem ba Misra mbaa ñuy dem ba Madiana kon nga xam ni daan nañ jànkonte lay jafe-jafe waaye léegi nag ñoo ngi santaat sëñ bi bu baax ngir poste bi ba mu taxawee ba léegi daanaka lu bëri yenneeku nañ teggu teggeeku na si suñu wàllu askan gi fii da ngay dox ñëw faju te doo raa doo fi yàgg da ngay ñëw faju gis ngeen nu mu demee da ngay ñëw faju li ngay soxla lépp di nga ko fi am daal di mën a jàll si sa yitte te buñ fi daan jóge jigéen ñi sax ñoo koy waxal seen bopp fu aye woon bëgg a faju wala nga bëgg a ñàkki sa doom rek boo demee jéemu daanaka bis boobu moom ay doo si bokk da nga fay passé journée bi boo xëyee fii dem daanaka balaa ngay ñibbisi daanaka tisbaar dana jot jigéen ñuy visite tamit noonu lañu daan jànkonte lay jafe-jafe ñu fi daan jógee di dem jéemul di visitu wala di ami doom tamit mm, problème yu ne lañ daan jànkonteel waaye léegi macha allah alhamdulilah askan gi daal ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci poste de santé bi création ak taxawaayam ci biir gox bi. waaw ci zone bi maanaam bu dee wàllum pajum constation général lu jëm ci mag ñi comme dëkk bi yëpp Touba ak yëpp moom HTA maanaam feebaru tension moom dañ koy seetlu ci paju bi. moom moom doon na fi affection boo xam ne moom day ñëw le plus souvent dañ koy am si si si consultation yi bu ñu ñëwee si fajum 0,5 ans yi xale yi moom feebaru jaare tamit seetlu nañ ñi tamit day ñëw lu ëpp si xale yi ak feebarum sëkkat maanaam IRA affection respiratoire aiguë yooyu day bëri lool si xale yi loolu tamit da siy am. bu weesoo loolu période paludisme bi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ngi soo a génn si hivernal bi nawet gi paludisme tamit bu jotee dañuy seetlu ni euh, dafiy bëri torop. feebaru sibiru bi dafiy bëri torop moom si si si askan bi moom daanaka ñëpp lay laal moom muy xale muy mag bàyyiwul kenn feebar yooyu daal lañuy am moom lu ëpp si suñuy consultation waaw personnel bi wax dëgg yàlla la ñuy soxla si ressources humaines lu jëm si wàllum poste de santé am na fi ndaxte boo ñëwee euh, médecine danañ soxla lu mel ni sage-femme te am nañ fi sage-femme d'État daañ am nañu ay matrone yoo xam ne tamit ñoo koy jàppale si liggéey bi fan yi si ginnaaw rek amaat nañ beneen deuxième sage am bu ñëwee si machine tamit infirmier baa ngi fi am nañ ay ASC am nañ dépositaire ñooñu ñëpp responsable PV yooyu yëpp am nañ ko fi kon pour nouvelle création xam ne ak fréquentation bi demeewul noonu kon mun nañ ne li ñu amagum si ressources humaines doyagum na waaw mun na assurer euh, liggéey bi sonalaguñu torop waaw. bu dee jumtukaay nag moom wàllum pañ moom ñëpp xam nañ ni matériel loo si am du doy. matériel paj moom loo si am du doy surtout dañoo nekk si léegi nouvelle technologie yi yëf yi day soppeeku à chaque fois mun nga am yu bees yu ñëw comme lu ñu si ti am du doy soxla nañ ko comme nouvelle création la tamit euh, état bi appuyé nañu district tamit appuyé nañu en matériel mais ba tey am nañ ay gap am nañ yoo xam ne muñ ko si amee danañ gën a jël yooyu moom mun see ñàkk moom lu mel ni euh, maternité bi soxla nañ poupinel am nañ autoclave mais tamit soxla nañ poupinel soxla nañ tamit ay table gynéco soxla nañ lii d'observation mooy lii nga xam ne malaad bu fi ñëw tey jii ñu waroon ko téye mu yendu fi wala mu war fee fanaan euh, lal yooyu noonu tamit mun nañ ne nii am nañ si waaye tamit des na waaw yooyu moom mun nañ ne tamit des na. màggal Daaru Karim édition 2022 bi ñuy waajal ñu war ko jàpp ci le 31. Mm, na 31 mars bi ñu jëm incha allah euh, doon na màggal boo xam ne moom ñëpp a ngi koy xaar ñëpp a ngi koy waajal ndax bu ñu xoolee ak pandémie bi fi jaar Covid 19 bi ñaari at a ngi nii si ren daanaka ñu mun nañ ko wax ndax yi jàll yëpp daan nañ ko ku nekk sa biir kër nga ko daan màggalee kon màggalu ren bi ñoo ngi xaar population boo xamante ne bu am solo bu takkoo takku dana fi ñëw. kon ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax poste de santé bi nag wàllum santé euh, fépp foo xam ne day am rassemblement loolu dañ ciy bàyyi xel ndax lu mu neew neew bu dee junni bu dee téeméeri nit danañ xam ni kat mbooloo mi fiy daje la wàllum wér-gi-yaram tamit dañ ciy jël suñu matukaay comme poste de santé bi ñoo ngi si taxawaay yooyu ci tànk yooyu noonu lañ nekk ñoo ngi koy waajal fu mu toll nii bu baax a baax a baax a baax nga xam ni rassemblement yu mel noonu mbooloo mi dafiy bëri lu ne mën na fee xew ñoo ngi koy waajal tey xaar gan yi tamit danañ jël suñu matuwaay wàllum ressources humaines li fi nekk danañ ko renforcer waat bu baax pour ñu jàppale ñu si liggéey bi. loolu déjà waxtaan nañ si ak sunu MCD muy docteur Ndeye Maguette Diop moom it maa ngi koy nuyu de passage ak sunu médecin chef régional docteur moomu du Dieng bi nekk région de Diourbel ñoo ngi koy nuyu ñëpp de passage. wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy déggante te ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax si wàllum ressources bi. nga xam danañ am ñeneen ñu ñu affecté fii ñoo xam danañ ñëw appuyer ñu jàppale ñu si liggéey bi si wàllu médicament tamit euh, district bi day appuyer moom it danañu jàppale si wàllu médicament kon ñu xam ni euh, incha allah lépp lu ñu siy séntu bu soobee suñu borom danañ si jot ak te dana euh, yemb daal incha allah. loolu commission de santé bi ñoom d'ailleurs ñëw nañ fi mel ni sëñ Murtada moom moo ko jiite. waaw consulté na ma ñëw na fi déggante nañ toog nañ fii si bureau bi waxtaan nañ si wax na ma tamit naka lañ koy doxalee comme boobu at yee jàll post bi amagut woon boobu district da doon envoyé ay personnel ñoo xam bu ñu ñëwee dañu def antenne médicale kese yemut ak poste de santé bu am poste de santé bu amee nag responsabilité lay si ICP bi la moom mooy organiser yëf yi kon ñoom ba ñu ñëwee dañ ma doon laaj sama xalaat ak naka lay doxee man it xamal naa leen santé nu muy doxee euh, paj meeg yooyu yëpp nu ñu koy doxalee bu dee côté ressources humaines ak médicaments yi nga xam ne district da koy appuyer yooyu du am benn problème incha allah sama naataango ICP ñoom ñëpp dana ñëw jàpp si boole kook ñi district day yónnee tamit ñoom bu ñu ñëwee yaakaar naa ne dana takku torop leneen li si des tamit mooy ñu ñooy xool naka lañ bëggee yëf yi doxee ndax euh, am na ñoom dañuy ñëw pour faju ku ñëw pour faju tamit da koy traité normalement comme il le bu ñëwee pour faju da nga koy faj faj bu mucc ayib lu muy laaj lépp da nga koy def loolu daa am leneen lu muy laaj mooy médicament waaw médicament yi tamit bu ñu xoolee bu fekkee district lu mu joxee euh, mun nañ si yokk leneen tamit géem a débouché fenn dem defiwaat commande médicament nga xam ne dana gën a mën a doy loolu jot nañ ko fi waxtaan te ñoom it euh, ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax ak leneen ak leneen lu ñu mun a jàppalee ñoom ñoo ngi si commission bi daal wax dëgg yàlla allah ñoo ngi siy doxee jéego yu am solo si màggal bi waaw. kàddu may daanelee rek mooy di santaat bu baax euh, xalif général des Mourides ak sëñ Maam mi moo fi nekkal sëñ Massamba euh, may tëjee samay kàddu mooy maa ngi santaat askan bi tamit ndax sanc mun nañ ne nouvelle création sanc yombul. te ñoom it ñoo ngi ñuy jàppale ñi sëñ bi booleel it ñoo ngi ñuy taxawu nu ñu mën yombalal nañu liggéey bi bu baax a baax a baax a baax di eh, ne askan bi tamit nañ ñëw képp kuy màggal si na nga ñëw te jël sa matuwaay tamit comme bu ñu fàttee ni eh, mbas mi daanaka yolomal nañ waaye moo ngi fi ba tey waaw pandémie bi moom moo ngi fi ba tey eh, jóge gu fi nañ ko xamee noonu kuy ñëw nanga nga respecté mesures barrières yi na nga am sa gel hydroalcoolique boo xam ne flacon bu ndaw bi respecté raxasu tamit ñuy raxasu ko wàllum cet mi tamit euh, mbooloo fu muy dajee ndox mun na manqué waaye fii ñoo ngi sant yàlla ndax bënnaat nañ fi forage yàggul dara problème ndox moom daaru karim amu ko moom mun nañ ne moom du fi am waaw waaye nit ñi tamit nañ jël matuwaay ci wàllum cet mi dañuy raxasu laataa ñuy lekk ñuy togg tamit ñu sàmmanteeg wàllum sell mi tamit yooyu bu ñu ko defee yeneen feebar yu bëri yu jëm nga xam ne salte moo koy joxe mën nañ ci mucc bu weesoo loolu tamit ñu xam ne euh, poste de santé bi moo ngi fi képp ku am soxla ci wàllum santé boo fi ñëwee danañ la taxawu te gratuitement lay doxe couverture médicale moom se gratuit képp ku fi ñëw danañ la faj jox lay garab nga dem te doo ci fay dërëm ñi nga xam ne tamit dañoo amee yeneen feebar lu mel ni asthme ak yooyu. bu ñuy ñëwit bu ñu amee seen i garab nañ koy àndaale ndax loolu dañ koy gis souvent si màggal yi dañu si ko xam ne dañ naan màggal rek mu jóg dem te yoroon feebar yoree garab yi muy naan da koy wàcc sa kër ga bu ñëwee ba fii yëf yi mun na ko daaneel te léeg-léeg bu ko daaneelee ñenn ñi du ñu am réflexe boo xam ne danañ nañ gaaw yóbbu ko hôpital mun nañ ko bàyyi foofu te mun na sonn lu ne mun na see xew comme prise en charge précoce boobu noonu dañ koy soxla tamit tamit nit ñi bu ñuy ñëw mën a àndaale seen i garab yooyu bu dee ñi nga xam ne dañoo amee asma wala yeneen feebar yi nga xam ne dañuy naan garab fu ñu toll diabétique ak yooyu dañu koy bàyyi xel bu baax di ñaanal nit ñi suñu borom yóbbu si jàmm ak salaam màggal ñu màggal si màggal bu mucc ayib waaw ñu fekkee ko jàmm teew ko ay yu baree baree bare ñëpp fekkee ko kenn bañ koo wute jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar man la Cheikh njaay di taalibe. ci waa kër Serigne Massamba mbake di taalibe Serigne Oumeysou Mbacke doomu Serigne Moustapha Massamba Mbacke ñu ngi ci wàccaayu màggaluk sëñ Massamba ci comité d'organisation bi waa Mahlul Khadim di def ci consultation gratuite bi ci màggaluk Daaru Karim gi ci poste de sante Daaru Karim waaw ñuy waaj consultation gratuite njiit la président bi di sëriñ Mourtala mu sëriñ Saaliw mu sëñ Masamba ñuy wàcc consultation gratuite bi ci bisub màggal gi ci postu de santé bu Daaru Karim ñuy wax ni taalibe yépp ku ñëw am jafe-jafe wér gi yaram nga ñëw ci postu de santé bi dinañ la saytu macha allah ni mu ware jox la garab yi nga xamante ni si moom nga war a jëfandikoo waaw ci ndigalu sëti ma Masamba yëpp ñoo ko organiser di ko def at mu ne ñu koy def nag macha allah waaye bii nag dañ kaa def ci biir post de santé bi comme que poste de santé bi poste de santé dëkk bi la te ñu nit ñuy doomi dëkk ba di taalibe ci kër gi ñuy ñaan bépp taalibe bu ñëw rek boo amee jafe-jafe rek ci wér-gi-yaram nga ñëw bu soobee yàlla dinañ ci def li ci war lépp suñu kem kàttan le 31 mars bi ñu nekk la mooy màggal gi di wax ni nag ñu ngi koy yëgal suñu mbokk yépp nga xamante ni si ñu ngi ci santé ci baylaat Seck mi nga xamante ni si mooy njiital croix rouge te ñu daan booleek moom muy ñëw moom it ci couverture médical bi di ci taxaw taxawaay bu mucc ayib ñu ngi ciy woo ñépp képp koo xamante ni si daal yaa ngi ci dëkk bi nekk ci hôpital diggante mat Matlaboul Fawzeyni Ndaamaatu foo mën a nekk jéemun foo mën a nekk rek nga ñëw jàppale ñu ci bisub màggal gi ba ñu xëy ba màggal ba ci suba ga ñu ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp di ci woo suñu mbokku yi nga xam ne ñi ngi ci santé ñëpp fu waay nekk rek nga xam ni màggal gi dëlmal nañ ko te it bëgg nañ ci taxawaay bu mucc ayib macha allah.